sëñ Mountakha Bachirou Mbacké xalif général des Mourides yéen ambassadeurs yi yi fi teewal seen réew yi fi toogal seen réew fii ci Sénégal yéen waa kër diine yi teewal fii kilifa diine yi ci Sénégal Serigne Cheikh Aziz Mbacké bi jiite comité de pilotage bu centenaire bi jëwriñ mbakk yu Fay sama mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew mi gannaaw bu nu sante yàlla mi ñu baaxe ñu natee bés bu màgg bi tey fii ci ndakaaru am na mbégte gu rëy ànd ak ministre Moustapha Sare ak benn délégation bu takku ci ndigalu président Bassirou Diakhar Diomaye fay premier ministre Ousmane Sonko ak gouvernement Sénégal yépp di leen jottali seen nuyo ak seen siyaare ci bés bi tey du ñu bàyyi di leen di sàkku ñaan ci yéen ngir seen yéene ci réew mi yàlla jàppale leen ci yéene gi mooy tabax réew mu moom boppam réew mu tëddee tëddee tëddee nu ndey ju seex yemale ñépp ñi fi nekk mais mu ànd ak naataange bu waa réew mi yépp bokk bokk yem bésu tey bii bés bu rëy la si ñaari fànn jëmm giñ ko jagleel muy Serigne Cheikh Ahmadou Bamba yàlla na yàlla yokk leeram may ñu ñu taasu ci barkeem dafa am ñaari firnde yoo xam ne bëgg naa ñu jàngat ci mooy benn bi mooy naka dunde ci àdduna ñaareel gi mooy ndono gim fi bàyyi li mu ci àdduna dafa nekk benn modèle modelu résilience li tubaab di wax résilience ak modèle ci droiture ak ci piété ci gëm yàlla ak ci jub ndono li mu fi bàyyi ndono bu am solo la parce que foo ko mënta natt rek foo ko mënta natt dina ko weesu mais dinaa ci lim ñaari ñaari poñ ñaari tomb biti ti jëkk mooy bi jublu ci diine nu ñuy jaamoo yàlla nekk na ci modèle boo xam ne amut kenn ku ko ci yem ci tànk ñaareel gi mooy ci tabax nit defar nit ni mu wa nit ki ni mu war a dunde àddunaam ni mu war a liggéeyee ni mu war a jëriñee boppam jëriñ askanam jëriñ réewam muy yàlla muy liggéey muy njëriñ loolu mu may may balaa may daaneel parce que bëgguma guddal kàddu gi may félicité sargal comité d' organisation bi ci liggéey bu rafet bi ñu def fi organisation bi rafet na macha allah di ñaan di ñaan di bokk ànd ak yéen di ñaan ñu am nawet gu barkeel waaye it di ñaan ñu fi teew tey ak waa réew mi yépp ñu am ñànkat ci besu tey bi bëgg naa bu ñu fi jógee maa ngi ñaan yàlla bu ñu fi jógee ñun ñëpp ku ci nag individuellement mu yëg yokkute ci jaamu yàlla am yëgit yokkute ci ni mu war doxale fi muy liggéey yokkute ci digganteem ak njabootam yokkute ci digganteem ak askan wi yokkuteem ci diggante ak réew mi loolu moo doon kàddu li ma bëggoon rek tey jottali leen ko fii ci turu gouvernement bi maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah